mais siège bi Moussa Ndiaye lañ ko tuddee mu ne woon coordonnateur premier coordonnateur national du Tekki maag moom ñoo créé Tekki maag moom ñoo ànd élection 2007 un garçon brillant Louga la jógee dem jàngee euh, Saint-Louis. man maa son décès avait créé un choc. mais l'ont assassiné oui proprement c'est clair et un choc évidemment pour Tekki aussi parce que. xalaatoon naa ne mën nañu rey ñëpp sauf Moussa Ndiaye honnêtement. mais dans mes euh, stratégies de défense ak yooyu parce que wóolu woon naa ko parce que il était assis quoi. assassinat politique la yow loolu mooy sa conclusion. Ah, bien sûr c'est ma conclusion c'est évident c'est évident c'est un assassinat politique oui absolument. dans quel découragé. ma découragé n'étiez pas un gros morceau en 2007. raconte médiatiquement amoon nga buzz. Euh, média yi c'est un grand économiste. mais nekkoo woon nekkoo woon non nekkoo woon une force bu ñu doon rey kay Idrissa Seck la ñu waroon rey. xaw ma ci dara parce que ah, Idrissa wala wala wala wala Tanor euh, wala Tanor <laughs> Dieng. wala Moustapha Niass Moustapha Niass en tout cas en tout cas en Ndiaye. ñu ngi ko fekk ci géeju Parcelles Assainies. mësul bëgg géej xamu ko waa Louga la dem ndar day ñu mu bokkal ndar foofu dañ moom nee nañ moom mësul jege géej gi parce que yaakaar naa am yaayam wala bàjjanam quelque chose comme ça. mais des autopsies réalisé nañ autopsie. waaw ba ñu autopsie après oui def nañ enquête. ah def ñu benn enquête. ah pas eu d'enquête non. je suis désolé ñu rey nit. je me rappelle que son amul enquête amul enquête. amul enquête kay ma wax la ko amul enquête ma wax la ko. je dis la vérité am na autopsie. kon ma commandé autopsie ñu ñoo ko commandé man mii maa seeti Ousmane Diagne moo doon procureur mu ne ñu d'accord nañ def autopsie Mendes moo ko def professeur Mendes mu ngi woon Dantec def autopsie. defi autopsie na nañu il faut faire des analyses toxicologiques noonu nañ ko tuddee parce que am na benn liquide bu ñu fekk ci biiram. analyse yooyu ba tey ba sànq ça a disparu. il y a une enquête. je sais pas ce que tu appelles enquête. non ouais. analyses toxicologiques n'ont jamais été faites. rien. absolument rien ma topp ci. mais on va regarder les téléphones ça, ça dépend ci autopsie bi di révéler. autopsie bi la mu révéler mooy ne il dañ koy continuer l'analyse parce que dañoo fekk ci biiram parce qu'il est mort par noyade loolu la ñu wax. nee nañu noyade loolu la ñu wax parce qu'ils ont trouvé de l'eau dans ses poumons ak yu mel noonu c'est ce qu'ils ont dit léegi nag des poumons à l'estomac ñu jëlee fa liquide boobu liquide boobu ñu yóbbu ko analyse toxicologique jaarale ko kii hôpital Fann ba tey ba sànq man laa non oh, finalement dafa yàqu dafa lii dafa la man la jig ma retenu six heures de temps là-bas di ma laaj lu nekk et puis fa la yem fa la yem Ah oui, ça, Sa famille a droit à la justice. Je Ses crois. proches ont droit à la justice. Mm -hmm. Et mun nañuy wax suñu état de droit am na am na ay fay suñu système gouvernance am na ay faiblesse mais quand euh, nit nit mënuñu ko rendi ñu jël ko ranger ko comme ça xaw ma waxuma dañ koo rendi mënuñu ko astafula pardon mënuñu koo rey yéen ngeen suspecté un assassinat politique. mais d'abord euh, le procureur mu am autopsie autopsie bu joxe des traces ñu ñu ñu ñu teg ñu ñu rangé ko aux oubliettes je veux pas euh, raviver la la la la douleur des familles ah mais loolu moo am MNF loolu moo naa ne procureur bi ci boppam nee na c'est une mort suspecte mu déclaré mu déclaré enquête comme tu dis ñu ne mu d'accord ñu def autopsie d'ailleurs autopsie il nous a permis même d'être présent parce que on a un de nos cadres qui est médecin ku ko fekkee ñu jëlee fa ce liquide dont je te parle yóbbu ko ba tey ba sànq. léegi nag su nekkee loolu ngay woowee enquête euh, moi je trouve que bon à la limite elle est bâclée quoi léegi man yemuma foofu quand Macky est arrivé au pouvoir ak ñoom Abdoul Mbaye bind naa leen ne leen il faut regarder ce on m'a jamais répondu